nee bi ñu jógee foofu daaw ne waa ji nga xam ne moo commandé bato bi nee na yàlla sol ci xolam sopp ma ak yéene ma jàmm nee na mu ñëw ci man di waxtaan ak man waxtaanu jàmm ak miinante naan ma yow day ku ñu tooñ nga ndax jote woo kenn rek ci sa borom rek nga nekk te nga nekk moo waroon ñëpp ñëpp ci lañu waroon a nekk nga nekk ci ñu di la dëngee nii waaye yow yaay ci baax dëgg dëgg ci yàlla baaxal man nag ku la bëgg la noonu mu ko ko waxee gaaw de it noonu la ñëwee di ko ko waxee nee na benn xaleel boo xam ne nasaraan la di tubaab moom itam ñëw waxtaan ak moom wax ju demee noonu wan ko di ko liggéeyal nag ni nga xam la ko murid yi liggéeyale lu mu aajoo rek mu defal ko ko te ko sax ab nasaraan la yàlla wulli ko def ci mu bëgg sëñ Tuubaa mu ñëw mel ne jaamam nee na yàlla def ñi moom ak ñi ci gaal gi ñëpp suñu borom daal di ubbi seen xol ñu ànd ak mbég moo xam ne xamuñu lu ko waral ba jamono yi nga xam ne ci la accès Gabon nag nee na ñu wàcce ko fa diir ba mu fa sax yàggul diir bu gàtt la fa sax ñu jëlee ko fa nag yóbbu ko ci beneen dun dun boobu yaakaar ne mooy maayom ba ndax bayit yam wax ba tudd ca maayom ba ne foofu la fa doon defee foofu la. ba fa la toog juróomi at yoo xam ne ci tumuraante ak ci tiis ak ci naqar ak ci métit waaye liggéey na fa liggéey boo xam ne kenn musu koo liggéey te kenn dootu ko liggéeyal yàlla nee na ci bis boo ci juróomi at yooyu ci jamono boobu ci dëkk boobu béréb boobu ci la mele ne jant bi ci jant bi tiim gi mu tiim adduna ak leeral gi muy leeral adduna nga xam ne bu bu jant bi nëbboo adduna lëndëm bu fenkee adduna leer tiim lépp di tàngal luy tàng di dundal luy dund ba noppi leeral luy leer mel ni mu mel mu ne ci ca juróomi laa mel ne jant bi nee loolu nee ci taalif rek lam fa taalif mbindeef mësu koo taalif taalif yoo xam ne ci njëriñam kenn xamul nu mu toll rafetaay mu kenn xamul nu mu toll bari waay ga mu bari it kenn xamul nu mu toll bari na ca loo xam daf koo suuxal ci dégg ndax digganteem ak boromam rek la woon bu mbindeef waru koo teg bët kenn xamul la war xam waru ko xam nu mu demee ci géej googu la doon waxe yashhad bi kawni abdaman yaghfiru dhanba wa kawni khadim al mustafa bahra ma yomba وليشهد بأني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنبات فبمنان أيا بحر وحد لا تسلس فربنا تعالى عن التسليس أكرم به ربا فكن ذا اضطراب مزبدا من مخافة من الله واشهد أنني عبده الصبا وشيخ موسى رحمه نان ngir ñom بني واحد ak lu yalla sax jangal wa in min shay bul ko sik ci amr bambara radiyallahu ta'ala anhu ci maqama momu lepp lu mu janon ci li yàlla bind muy jamaat muy baahima muy doomu aadama suñu borom xamal ko sa mbóot xam ngeen ni béréb yi de dañuy seede seede nit ñi jaamu yàlla buñ jaamu yàlla ci bërëb bërëb boobu daf koy seede daf koy daf leen koy seedeel yomal xiyaam mooy bu ñu moy ci béréb béréb boobu daf leen koy seedeel yomal xiyaam ku fa lor mbindeef mu mbindeef lor itam ci kaw suuf ci bërëb bërëb booba béréb booba dana ko seedeel ci diggante ñaari mbindeef moom yomal xiyaam bu mu jàngoo géej gi ba gis lam làmboo ak lañ fa jëf mu daal di xut ba géej gi ci boppam ba géej gi dellu gannaaw nooy duus ya mu doon duus mu ne ko bul buusoot lu dul ragal yàlla li tax ngay buusu juróom ñi ak ñooñu nga xam ne kon moom la am ci diggante boobu ñuy wax maayomba dañ ko fa dal di jëlee yóbbu ko ci beneen dund boo xam ne ñetti at ñu manqué la fa am dul boobu itam lu bari xew na fa ci ay xew-xew ca la toogee woon di bind benn xale lu nasaraan bu am kàttan yor jaasi ju doy waar ju gudd ju ñaw gi melax ak si tiim ko tiimale jaasi ji bopp bi di ko wëndeel ci li tiim bopp bi naan ko Ahmadou Bamba wattuma xanaa xamuloo ne man ñi fi daan woote wilaaya ñëpp sama maama leen rey maa sama maam wattu ma damay reyee de damay reyee wattu ma laa wax dañ ko baa joxat ko xalima gi gëdd ko ba ba xaw ko song ne ko wattu ma wattu ma sa maam daan rey te doo sa maam xalima gi mu ko joxar bi waa ji sit bi naaw muy dellu gannaaw ba daw dellu seetu ci moom moom la abdoulaye salim ndu xambal moom la wax bi muy way lenn ci xawaare maanaam ci xarbaax yi nga xam ne moom la sëñ bi def ci géej gi ci la doon waxe wa mu'tadin murtabin aswaaba mu ne wa mu'tadin murtadin aswaaba izzatihi yaxtaalu bayna qabaayihi wa zunnaarihi تمشي ألوف ألوف تحت سطوته لم